بغيا بالسوء والخدمة مساء digganteem ak dëkk bu sell bi di Touba toll ci téeméeri kilomètre daaray Hisnul Abraar nekk ci ginnaaw rancho de Dolly Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr sanc faayu tool waaye samp faab daara Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides jox ko tur wi boobaak léegi mu toll ci ñaari at Serigne Bassirou Mbacké teg tànkam fa nga xam ne fa la ko jur yi ak maamam ja tegoon. Serigne Bassirou Mbacké nag moo ko sànci dal daal ci fas yéene dab roy waajur mi baax yi fi newoon daan liggéey ci wàllum tarbiya ak defari gone ngir ku bëgg am mag ñu baax dangay ngay defari gone. noonu daal lañ fi ñëwee sëriñ bi sanc daara ji ñu boole jàng ak liggéey jàng ak liggéey nag bu ñu ko waxee mooy jàng alxuraan jàng xasida di ko yëkkati di ko bi di ko biral te di ko yalu ربنا وجهت وجهي لمن أكرمه بانا بزار مولدي من للبار ربانا لله سقيا في زري ربي هنا إله إلا الذي يختار قربانا وتقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إصرارا وإعلانا وتقبل الخير من لا شريك له في الملك والحمد إزهر وإعلانا والبرين ما الله مولانا حتى أقيم لدين الله أركانا boole kook nag di liggéey ci mbay loolu la sëñ Bassirou sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ Abdou Khadir ci la nekk fii ci daara Hisnul Abrar sëñ Bass fekku fi dara waaw fekku fi dara ab àll rek bu ne bu ne bu bu bu tali la fekk dal daal daal di sanc nag ba noppi nit ñi fekk ko fi mu woote ñu gor ba nii may waxee yow gor baa ngi di démarrer ba léegi dara soppeeku ko ci li soppeeku kay mooy sant yàlla ci màgg gi mag gi ni muy gaawee te moom mootal noonu ngir sëñ Tuubaa ji muy liggéeyal xam naa ni nag fii ñu toll moom waaye sanc na ba tàyyi te yëggagul fii waaye sëriñ bi moom mbir mi kawe na lool. ci daar mu gaaw indi ay salaire ndegam courant bi mënu ko salaire yi nag dooy nañ sëkk ñu ngi alimente daara ji fépp foo xam ne rek dañu fay nekk di jàng alxuraan ak a jàng xasida bu courant ñëwoon li muy def li suñ bas indi ci ay salaire mu ngi koy matale ndax daara ji dafa war képp ak ay làmp ndox mi itam am na ndax ñu ngi xëcc ci ci ci sëriñ jiil moom suñ boor bu sa jëng ci forasam ba fa lañ jëlee tiwo mu ñëw ba ci daara ji lépp lu aju ci daara ji ci dund wala oto bu ñuy demee lépp sëriñ bi lépp moo fi ñëw. sëriñ bi bi mu wootee ngir defar ay ndaw teg leen ci yoonu siraatu mustaqim yi nga xam ne fi la ñu baax ñaawoon bi mu wootee dañ ñu ko fekk si am na ñu dalagul am na ñu dal daloon waaye bi daara bi ñu ñëwee ñi daloon ñu ci ëpp dañu leen dalalaat ndax bëgg njàng mu leer te wér te ñëpp bokk fu ñu jànge léegi loolu nag moom moo sababoon tawaral waral euh, mu jël ñaari sëriñ daara yoo xam ne seen liggéey ci daara ji mooy jàngale alxuraan am na fi xale yoo xam ne ñu ngi doog a dal. ci diirub ñaari at yi ñu def ci daara ji di jàngale alxuraan xale yi seen seen wàccuwaay ci alxuraan mu ngi rafet lool te sell te ñu ngi am yaakaar goo xam ne eh, ñu ngi ñaan sëriñ Tuubaa dimbali ji te dimbali ci sëriñ Bass ba mu am ci ndam lu rëy waaye alxuraan ji moom mu ngi dox kem kàttan daara yi Hizbul Abraar am organisation bu mucc ayib ne ay sëriñu daara ñoom ñoo fa ne di tàggat gune yi di leen jàngal waaye di leen yar foofu yi sëriñ bi def kéem talaay kàttanam ba lépp lu nga xam ne dafa jëm ci wàllum wér-gi-yaram ak wàllum dund mu mat sëkk. ñaari sëriñ daara ñoo fi nekk di jàngal alxuraan man maa fi nekk di jàngale xasida di yar gone yi ci sellal di leen yar ci tërbiya ba noppi di leen fexe ñuy set di méngoo ak jamono ci méngoowaay yi nga xam ne méngoowaay maanu la loolu sëriñ bi ah, ñun ñoo ko féetee foofu fii ci daara Hizbut Abrar weer wu jot dund bi day ñëw ci daara ji. weer wu jot dana joxe ci alal lu bari ñu daal di koy def ab dund indi ko ci magasin bi maa yor caabi ji wàllum feebar faju tamit ambulance ambulance am na fi boo xam ne moo ma ko jox man maa yor caabi ji gone yi ku feebar ñu sëf teg la ci ambulance bi yóbbu hôpital bi gën a jege mooy Thiel buñ ci amee leneen ñu yóbbu Touba waaye sant nañ yàlla ci suuf su lewet sii mu ñu indi ndax boobu léegi ñu ngi ci sant yàlla déedéet kenn du fay. kenn du fay du yëre bu ñuy sol lañ leen indil du du dara loo xam ne rek ñu ngi koy sàkku mu jóge seen waajur yi lu loolu rek ñu bàyyi leen ñu bàyyi ñu fa xale yi bañ defar leen waaye sëriñ bi euh, lépp loo xam ne nii xale yi bu nekkoon seen kër yi am ko gëm naa ne ci daara la ëppee te ñu ngi fi amee loo xam ne ku nekkoon sa kër bàyyi sa kër yaay doo ko amee fii ci daara ji Hizbul Abraar ji lépp loo xam ne rek ku ku ku nekkoon sa kër bàyyi sa kër yaay di ko fa amee boo ñëwee ci daara Hizbul Abraar bu sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdou Khadir di nga fi fekk loo xam ne boo delluwaatoon seen kër doog fa am loolu nag ci yërmandeem ak tabeem ak mu baaxam ak bëgg gi mu bëgg Sëriñ Tuubaa ak jiital gi mu jiital Sëriñ Tuubaa ci liggéeyam bi muy liggéey te wéetu ci benn yoon loolu moo waral liggéey bi di mën a sotti jamono bu nekk juróom-ñetti bunt moo moo ngi ci biir daara ji juróom-ñetti bunt yoo xam ne bu ci ne kees la boo ci duggee ci ci biir daara ji ngay ngay dugg duggee ci daara ji rek ci bunt buntu mag bi di nga jàkkaaroo keesu sëriñ Bassirou Abdou Khadir boo ko weesoo ci sa càmmoñ di nga dajanteeg benn kees boo xam ne ñaari bunt ca kanam boo ko rëccee di nga dem ca kees soxla soxna su baax si boo ko boo génnaatee ba ci biti tamit di nga jàkkaaroo kees goo xam ne dana fi danañ fay denc lu mel ne bernde yi buñ ko waree bu ñu ko war defar mooy ay xarag yu mel noonu danañ ko fa yóbbu am na kees goo xam ne itam kees suñu Mamadou Mourtala moom sëñ Modou Moussa Abdou Khadir mooy boo jiyee fa faral di dal. fii nag wax dëgg yàlla sant nañ yàlla ndax suuf si nangu na lool boo xoolee daaw ak ren lañ fi bay ñaari at yëpp lu toll ci di dix tonnes gerte la bay fukki tonnes la ñuy bay ci gerte lépp loo xam ne jóge na fi itam ci sëriñ mun taxaa ci lay dellu kon mu ci loxo loxoy Sëriñ Tuubaa génn ko. li bàyyi ko lépp lu waaw li bàyyi ko ci mbay mi lépp diggante gerte ak ngooñ lépp lu fi jóge ci sëriñ Mountakha sëriñ Mountakha Mbacké lay lay dellu léegi nag ñaari secteur ñoo fi nekk di ko bay sëriñ bi bu bay jotee ñi jàngal alxuraan da leen di bàyyi ñu jàngal alxuraan ki yar gone yi mu bàyyi ko muy yar gone yi mu jël ñeneen ñoo xam ne da leen di fay ci alalam ñu nekk ci tool yi di liggéey du ci yoral kenn xaalis ku ci nekk ku ne bu weer bi dee la nga war jot da ko jot continuer ci sa liggéey ci tracteurs yi ak ñu ni mel. bu demee ba nga xam ne des na lu mel ne ay buddi ñax ak yooyu ñu yi comme dañuy tërbiya du ñàkk ñuy sawaral deret yi ndax ñu bañ a tàyyal loolu ci la xale yi duggee ngir jàpp ci liggéey bi ak bu demee ba liggéey bi tàmbali ëpp doole ñi ko nekk ñi fa nekk ndax diitoon ku bëgg bay dëgg moo koy bay ak ku am passeef ak ku am pas-pas jiital boppam ci liggéey kooku mooy def loolu Serigne Bassirou mbakke nag euh, xale yi nga xam ne ñoo daje ci daara ji saa bu liggéey jotee ñoom li ñu njëkk a def mooy takkatoo ñëpp ma ànd ak ci tool yi bu demee ba nga xam ne oyof na ci ñëpp ñu àggale seenum njàng loolu lañuy defee waaw gannaaw ba nga xamee ni kon Serigne Mountakha Mbacké jox nu ko ndigal mu wéyal liggéey bu fa fecc isnu Hisnul Abrar ñaareel bi at kon muy am aw ruuc di fa bay lépp lu fa tukkee mu jox ko addiya moom xalif général di Mouride Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr jot fa dalal ay kilifa yu takko takko kenn ku ne ñëw nemmeeku liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci Hisnul Abrar santu ko ci ñaanal ko ci.